yile liggéeykat yi ñu dàqoon foofu ci bile société di Dakarnave ñoom ñu amal mobilisation bu takkoo takkoo ngir ñaawlu bu baax a baax décision bi nga xamante ni seen administration jël na ko. Euh, démb dafa am benn euh, postule boo xamante ni bi gi Marius Sagna daf ko def ci page Facebook di commenter. actuellement ci contrat bi nga xamante ni bi Dakar Nav war na ko signé muy contrat bi nga xamante ni portugais yi occupé woon nañ ko depuis vingt cinq ans mu nekk une perte totale pour ce pays une perte totale pour tous les travailleurs parce que képp ku fi nekk di liggéeykat xam nga ni carrément vingt cinq ans yi fi portugais yi ne c'est une perte totale amul benn liggéeykat boo xamante ni bii tey mun na fi taxaw wax la benn situ habitat boo xamante ni bi liggéeykatu Dakar naa ñoo ko moom kon yaakaar naa ni lekk ci boîte di liggéey plus de vingt ans te mënoo am kër kooku sa employeur yaakaar naa ni yéenewu la dara ñi pare ci bile personnel te ñu dàqoon leen ñu ngi sàkkoo bile dogal ñu xoolaat ko bu baax a baax te ñi nga xamante ni ñu ngi fay xëyee bés bu yàlla sàkk ñu jox leen seen àq ak yelleef travailleurs yi tey ku ci nekk parce si on de chantier naval rek c'est-à-dire euh, war nañ wax un un salaire décent pour man travailleur bu ci nekk tey war nga gaare sa oto war nga am sa kër xam nga du jar ngay def ay heure supplémentaires parce que pour nga am dara fii foog nga def ay heures supplémentaires sinon doo am dara tu n'as rien du tout et des licenciements vraiment abusifs des licenciements abusifs gannaaw ba bile dogal wàcce jóge ko si bile administration ñoom ñii nga xamante ni ñoo fa doon liggéey te ñu dàqee leen ñi ngi sàkku si nu mu gën a gaawee ñi delloo leen seeni àq ngir ñu mën a reprendre seeni activité comme nu mu waree.